ñëw nag tey ci beneen facette ah nee nañ tabaski tabaski ngi waaj a jot incha il faut ñu am nu ñu defee ak yéen euh, ngeen koy savourer di ko savourer macha allah ba tabaski ñëw dal seen kaw ñi amul xar ak ñi nga xam ne ñu ngi ut xar yàlla na leen xar yomb incha allah doolay poos yàlla defal leen sutura àdduna ak àllaaxira yal may leen mujj bu rafet ñu nekk ci hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp waaye ñu nekk ci prison bi nga xam ne suñuy soppe lañ macha allah di ñu bëggee ñu ngi leen di ñaanal jàmm yal na yàlla génn leen foofu ci jàmm ci barke yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne nag ñi ngi ci tiis ñi ngi ci naqar ñu leen di ñaanal yal na yàlla def uh, way daw doy xippee aljana fi daws yàlla mën na ko te dina ko def àtte leen ci yërmandeem kon nag ñu ngi ñaanal képp rek koo xam ne mi ngi toog sa télé safoo télévision bi di 7TV kon nag yaa Adja xanaa ñu ñëw rek macha allah birale nuyoo mbokku téléspectateurs yi nii seetaan rek ci émission bu mag bi di Oumou waaw sama rakk ji sa robe sa rouge lan la. ah tubaab bi ko sàq da koo rek. nga jàpp ma may yàqate ñu nii. ah jàpp ma di ma reewal. de sa rouge daaneel na ma defal ay affaire tubaab kàlla sax sa bopp regale maa mbay jooju. maa ngi lay nuyu sama rakk ji. maa ngi lay fay yaa nuyoo boo xam ne amul app. ndeysaan amul commencement amul fin. ngi lay fay bu wéeru yow maa ngi yow. ndeysaan dañoo am nañu mel ci dëkk bi ba amatuñu droit def benn erreur ndax da maa bëgg ma bëgg la nga fonk ma ma fonk la mhm. yaay yi xam ko papa yi xam ko ñëpp xam ko tubaarkàlla macha allah li ma leen doon wax rek xobu garab war naa ñaanal taatu garab yàgg fi soo aji ngoy caali toogee tey ci mhm. mu mhm. dem ba am ëttu kër ndaanaan yi yàlla ak sa tax yeneen émission day ñëw tubaarkàlla te yàqoo ci dara kon ñu ngi nuyu téléspectateur u 7TV yi télé bi ñuy ndiru ba noppi di ñu dajale la télé qui nous rassemble et tey moo ñu boolewaat fii macha allah dajale ñu ci Oumou Show. waaw samedi 16 nag. Mm-hmm. pare leen ko préparé leen macha mm-hmm. allah. teg ataaya yu umu. waaw waaw teg beñe yu tàng yi. teg soow mi. yasmin yi di xaar ñu. ah ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér te guddi gi sax defe naa ne boo tegee semis yu yeeg ak salade yi waaye amul loolu day garaaw loolu day garaaw loolu loolu day garaaw mhm. naka noonu nag la ñuy duggee ci hôpital yi mhm. nuyu ña fa tëdd dugg ci tubaarkàlla macha allah prison yi mhm. nuyu ña fa ne kilifa diine kilifa aada nuy nañ ñëpp àddina wërngal këpp salaamaaleykum umu show heure bu baax bi temps bu baax bi ci ñaari jeeg ji nga xamante ne ñoo téye réew mi nii. dangay ngay seet loolu rek <laughs> yàlla baax na. ba tax na macha allah suñu ndaanaan bi nga xam ne ne euh, boobu ba léegi mi ngi fi ñëwoon nag macha allah fonk heure bi nag. Mhm. man li ma gën a neex ci moom mooy dafa respecté heure. Mhm. maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di la dalal nag ci plateau bu mag bi di Oumou Sow. waaw mhm. euh, merci beaucoup maa ngi lay fay. vraiment di rafetlu kàddu yi. Eh parce que nit moo solo ci doomu aadama. lu la. te euh, vraiment ba mu fi toogee ba léegi ay kàddu yu rafet laa fi dégg. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre. Mm-hmm. parce réew mi temps amatul. waaw moo tax ma naan mm-hmm. nit ku nekk rek bu amee sa temps di la yëg di la nemmeeku kooku la bëgg la. Mm-hmm. waaw ndax ñun dañu nekk ay jeunes nekk ay xale. li ñuy def ci lañ yaakaar gannaaw yàlla. kon buñ gisee koo xam ne daf ñuy may buntu di ñu may doole. dañ koy sant vraiment ndax lépp yàlla la. Mhm. merci beaucoup di am contentement. Mhm. pour toog ak yow ak ñëpp ñuy seetaan yëpp. Mhm. merci. macha allah Chérif euh, ñu ngi lay nuyu macha allah suñu góor suñu xarit euh, ki nga xam ne ne macha allah ñun ko soxla ci plateau bi ndax nag jeunes yi dañuy seetaan kilifa yi duñu seetaan macha allah actualité dafa am si solo dafa am solo ci émission ndax nee nañ émission bu diglewul yeetewu rek ay naxaate la. ba tax na macha allah ñu ngi lay dalal suñu góor suñu xarit Chérif Diallo. jërëjëf euh, Moussaw jërëjëf Ngoy Thiali jërëjëf ñi nga xamante ne ñoo teew ci plateau bi toute la les téléspectateurs de la 7TV maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ab bégte ak contentement chaque samedi 16h di teew fii ci émission bu mag bi la nga xamante ni mooy Oumou Show daanaka li may wax tout le temps émission bi nga xamante ni mooy joindre de l'utile à l'agréable ndax itam bu nu ambiance ba pare dañuy ñëw waxtaane li nga xamante ni mooy actualité luy jëmale réew mi kanam mhm. kenn ku ne mën cee sottante xalaat ñu mën cee jëlee njëriñ ndax réew mi tam toll na foo xamante ni ndaw ñi dañ ci am part de responsabilité bu ku xool ni élection yi demee war nga xam ni ndaw yi am nañu euh, doole ci réew mi ba nga xamante ni euh, Oumou Sow mm. buñ ci ñëwee dañuy indi actualité daal di ciy waxtaan donc ci kanam tuuti bu nu tàngalee yaram bi ambiance ba mu neex daal ñu ñëw euh, indi actualité bu am solo di la jaajëfalaat bu baax a baax mm-hmm. saa su ne damay am mbégte di mm-hmm. teew ci émission bu mag bi leen ndax mm-hmm. itam ñëpp a koy seetaan c'est la télé qui nous ressemble et nous c'est la 7TV la télé qui merci d'être venu euh, Chérif euh, macha allah ñu ñëw ci Pape Alé Dieng bi nga xam ne ne xam nañ ko ci série yi macha allah muy toj réew mi national ku ko xool xam ne ne professionnel la ci li muy def Pape Alé ñu ngi lay dalal di la nuyu bu baax di am kontaan te nga teew fii ci plateau bu mag mm-hmm. ah, di nuyu ci plateau bi di nuyu chers téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy safoo di li nga xamante ni mooy 7TV. Mm-hmm. Ah, nee naa la télé bi nga xamante ni mooy boole. Mm-hmm. tey. waaw kay su ko defee nag euh, mhm. di leen jox li nga xamante ni mooy mhm. actualité ah, fas yéene taxawal ñi nga xamante ni euh, mooy réew mi mhm. euh, ñi nga li leen naqari ak li nga xamante ni moom ñu ngi koy dund te mënuñu ko mënuñu ko yuuxu ñu dégg leen tey ñun ñoo leen fi toggal incha allah fas yéene leen xeexal loolu jërëjëf Pape kontaan nañu macha allah ngay doomu Medina nag mën li ngay def nekk ci série yi di yëngal sa série bi nu mu tudd góor <laughs> jabaru góor gi jabaru góor gi macha allah yaa ci nekk lan ban rôle nga ciy joué <laughs> ah mais foog ñi nga xam ne ne ñi ngi seetaan dañu bëgg a xam. international bi bu xaw a tàngal série bi rek. ah maa xaw a tàngal série bi yow yaay tardeel série bi. xaw a tàngal tuuti yaa koy tàngal noo koy tàngalee Pape Alé. waaw xam nga Oumou. Euh, mm-hmm. série dafa nekk loo xamante ni personnage la da ngay génn ci ki nga doon dugg ci beneen po. Mm-hmm. voilà foo dem nag ak personnage bi ngay incarné. foofu nag ma nekkoon fa. Euh, nekkoon doom joo xamante ni yaayam jur na ko sànni ko. Hmm. xamul yaayam. mu nekk bitim réew ñu yara ko fa ba mu màgg ñëw Sénégal wala investir bu ñëwee te sante euh, benn xale bu jigéen. Mm-hmm. bëggante ak moom. mu bëggante ak moom na dem ba ci benn kër moom xale bu jigéen bi ñoo bokk benn yaay. waaw mooy euh, loolu mooy. jamono góor gi waaw hmm? ñu dund la waaye. kuy loolu loo ci sànni. <laughs> waaw loolu yéeme na de. dafa xam nga li mu wax. ak mbëggeel ni mu foore. li mu wax dafa ma am lu may fàttali. ngeen dem ba hmm. bëggante noonu. li mu wax dafa am lu ma fàttali. Uh-huh. lu garaaw la wax nii loo xam ne. lu yéeme na am na ñoo xam ne fekk na yaay dee bàyyi dee du ñu xamati ci àddina. parce que uh-huh. góor. Uh-huh. dafa nekk lu secret. gis nga góor. Hmm. lu lëndëm la. am na góor ñoo xam ne tey am nañu ay doom ci biti. xaj na situation bu ñu nekk tax na. mënuñu koo wax ba abadan doom joojo bu dajee ak frère mooy indi cause mel nii mm-hmm. man bi may xale xam nga man euh, sama yaay mm-hmm. moo ma yar nekkuma woon ak sama papa mm-hmm. léegi maa ngi doon jàngee école ngelaw école ngelaw sama mag bu jigéen nogoy yal na ko yàlla yërëm gaañu na léegi moom moo topp ci gar mi moom mu nekk géejaway léegi man fi may jàngee ci ngelaw nogoy di fa jànge léegi man dama mës a ragal waaw su ma ñëwee am na benn gel bu fa nekk bu ñëw xaddi siise waaw mhm. su ma indee sama mburu rek kooku da koy nangu ndeysaan donc du ma mës a ndékki suba teel na ci génnee récréation mu nangu mburu bi dóor ma ba mën a taase mu jógi man bala mu maa dóor damay dem jël mburu mooy xale yi seen yaay du jox xale yi seen yaay nekk te ba pare ñu agressif mhm. yow daal dañuy jël mburu léegi nag mu ñoo bokk benn papa mhm. mu ñëw fekk fekk ma benn bis may jooy xaw ma ko de mu ne man lan la ma ne ko kee mooy nangu sama mburu du ma ndékki mu ne ma léegi boo bu ñu génnee te récréation yow génn toogal xaar ma ci biir classe man naa la génne nga lekk sa mburu waaw léegi su ma génnee su ñëpp génnee man ma toog ci biir nogay ñëw jël si ma xale bi nag du ñu may dugg parce que maître baa ngi toog ci ci table bi di am yu muy bind mm-hmm. ba bi bis mu ne moom day seeti papaam marché bi ma ne ko man tam damay seeti sama papa waa ñu ànd ma nag moom ba ci sama atelier papa mm. te ñu ñaan ñëpp ñoo bokk bàyyi mu ne nogay ngoy fu ngeen gisantee man ko ah yow da ngaa xam sam papa papa da ngaa xam kii mu ne moom tam papa da nga xam kii. dafa noonu lañu ñu jëlee yóbbu ma keroog HLM ñu jóge fa mu yóbbu ma géejawaay fi sama mag bi nekk. loolu suñ demoon ba màgg. waa mën nañoo ngoro lu am importance la. macha allah Ale. Euh, nga am ci yenn revenu. ndax boobu ba tey gis naa TikTok bi et tout. Mm-hmm. Euh, xale yi di la apprécier. Mm-hmm. waaw lan la lan la Ale. waaw revenu yi bari na parce que ñun euh, suñu rôle mooy yeete. Mhm. comme ni mu demee ni ko tata bi waxee rek. Mhm. Ah, joué naa ko am na ku ko dund. Mhm. am na ku koy jooy tey te kenn xamu ko. xëy dina ci gis boppam. loolu la daal ñun nekk wuñ fi lu dul jàllale message bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy dund. mu metti loolu te mënuñu cee waxtaan ak kenn. boo defee ku ci nekk mën ci gis boppam. loolu la. kon baax nañu dem mbokk téléspectateurs yi suñu artiste euh, may ñu tuuti ci li nga xam ne ne moom la ñu indaaleel ñu bëggee savourer macha allah. waa mu contentement mhm. pour bégal leen parce que dañ ne garab ci kaw lay fekkante mhm. te wax ju àgg dof moo ko moom ndax yéen ndaanaan bu nekk jaar na seeni loxo kon buñ toogee ak yéen mhm. ndam la ci ñun parce ku la invité umu saw waaw loolu loolu la quoi en tant que jeune nga nekk sénégalais nga xam ko nag parce que nit nga xam li ko yàlla may nga nangu ko mhm. waaw Chérif moom mënuma wax ci moom mënuma wax ci moom dara ndax lépp lu ma wax ci moom day nuroog bëgg ko ëpp quoi mhm. yàlla mi ñu boole yàlla na yàlla dëgëral ànd bi parce que ànd yombul mhm. parce que da ngay ànd ak nit ñaa am na ñoo xam duñ bàyyi ñaar ñu ànd waaw moo tax ma koy wax sama benn son tey ma yëngal samay noonu moo tax képp kuy ànd ak sa nawle waaw moo tax képp kuy ànd ak sa nawle ci réew mi boo gisee ci moom qualité yu la neex jàpp ko te yàlla tax parce que temps yombul soo amee ku la bëgg maa ngi sànq rek di ànd ak yow te yàlla tax. jàppal waaw comme comme ni ngeen mel. yàlla fal jot. comme ni ngeen mel. foo ma foo borom Gambia mm. sama waa ji mi ngi mm. seetaan ca Gambia. Mm. moom it ah. noonu la ma bëggee. su may anniversaire Sénégal day Gambie. na yàlla lafal ñu ca moom it macha allah ngooy ca Alex Sofia yàlla ca Italie macha allah. foo leen bëgg rek. delloo fa sab ba tax na bu la yàlla mayee na nga doy kii bul ko soxoree yàlla muy hmm, yàlla mooy borom jaam ñi. umu saw doomu Adama ngi julli ji ñaan umu saw laay way am na mbaar am na mbëpp am na jal am na jole am na mbëfër wéli ma yaa booy yaa booy yaay gir gir ma way addunaa ngi nii doxal maa ngi ñëw la segam kaso moo tiis yaay waxuma laak bàmmeel del xel di laajte sooraaleel te it bëgg naa ngeen xam ni yéen lu am lu ne yàlla la yàlla muy dogal ci jaam lu yàlla nangu nang ko dogal yàlla muy dogal ci jaam be lu yàlla dogal nang ko nangu nangu leen nangu naa umu saw tukulóor be yaay ñoo bokk min maam sama yaay tukulóor la noddu ko bandu sama maam di samay maam bokk faaleen jëm jàll mi ci jàjj ma sàmba nee na faa sumay maam fay mbay njaga sumay maam booy ma way yàlla mooy dogal lu waay am sante ko laawo be gir ndeysaan ma way loolu neex na bi ah, ah tàngatu bi neex na de Chérif macha allah waaye giri giri googu dugal ci sa biir son moom loolu lu mu waaw loolu nag dama gis ne benn <laughs> affaire la boo xam ne du seen syncope la wala lan la. loolu moom samay affaire la quoi parce que nit ku nekk. Uh-huh. liñ naan mag du dàq day koj. te ku nekk am nga ay kale. comme suma yaay ji dama ko gis ay fee moom daf ma neex quoi waaw moom lu naturel la quoi xam nga nit looy def rek na nekk mhm. lu naturel nga bañ a trister bañ a forcer moom li muy def dafa naturel mën na la reeloo nga mer ak nga ak nga mën na dindi sa stress mën na la reeloo ci mhm. te moom ni mu koy waxee noonu la ko sentiré di ko wax waaw man tam su may mhm. waay noonu laa ko sentiré tigirigiri dama ko sentir noonu rek di ko def yi jubluwuma ci dara parce que dama koy def ay nit di ci ree moo tax ma koy def eh, kon tegaatal ma ca giri giri googu ndax man daaneel na ma ay ca ñu dem <laughs> anaa xamuloo yaa booy waaw sëriñ fàllilooy borom yërmande alaaji fàllilooy borom kilima be yaay gir gir ma way wili ma way leleen maay yaa yaay ba tax na mënuloo rëy ba gën a rëy fa nga juddoo baa nga gën a riis fa nga juddoo deretu géejawaay mooy daw suma yaram moom laay tiitaroo naaw naaw naaw tigir gir ndeysaan ma way dégg naa ñu naan kuy rëy say noon sa mbokk ñooy njëkk a jeex mën ma ne bu nit xamoon li gën ci moom du dem di ñaanlu yàlla noppi na doomu Adama soxor maytu leen yàlla soxor li may woy damay ñaan di ñaan di ñaan maam booy di ñaan ba jéggi frontière mooy. macha allah ba jéggi frontière la wax de ngoy caali. Hmm. waaw. yaa woy li la de. yaa woy li nag ah, koyoobe la moom ba pare dafa gëm boppam man looloo ma neex. ku la ba def ci ay harmonie waaw mën nag way mhm. dafa yàgg nekk mhm. que suma yaay Touba la nekk mhm. bi may nekk xale dama daan nekk foofu mais su ma mësaa nekk ci di dem di jàngi wala may nekk ci école yi sax dañ may xool ñu xam ne kii moom mi ngi nekk fii mais mënul mënul mënul dund fii quoi après ñu jële ma foofu yóbbu ma si sama benn nijaay bu nekk Kaolack pour ñu yóbbu ma foofu ma jàng pâtisserie mais bu ñuy dem di liggéey def naa ko pendant sept ans. pâtisserie waaw pâtisserie bu ñuy def lan ci pâtisserie. mën naa ci lu bari parce que def naa ko sept ans. ngoy kii waroon nañu indil ay amuse de. moo ah? a crevette. yow mais mais li ma lay nettali nii histoire la. Ah, parce que parce que li ma laaj. maam ku la jàngal way waaw loolu moo tax ma koy expliquer parce que doomu aadama bu nekk am nga jaar jaar macha allah yenn saa yi moom mu fàttaliku loo xam ne ci mhm. addunaam mhm. da koy xam ne dara du dara mhm. waaw parce que fi jaar yëpp ak moom en tant que jigéen waa taxawaay taxawaay bi day xam ne ndekete adduna looy gën di dund rek di gën di xam yow yaay kan waaw après fi ma jaar noonu ma def par série sept mais lu yàlla tudd ne ci ngay mujje ci ngay mujje alaakuli ali yàlla mooy dogal mm-hmm. après mais su may liggéey damay nekk di wayantu sama mm-hmm. nijaay bi daan ne kii moom xam naa ne li muy def nii bëggu ci dara. Mhm. te boobu loolu moo am parce que ñemewu ko woon dama daan liggéey noonu pour pour pour pour sauver sama sama yaram bañ ko ma dóor mais boobu sama sama sentiment sama xol sama kër lépp musique moo ci nekk. après ñu jëlee ma fa jox ma sama maam. Mhm. benn jour may dox gis caat sekk muy jouer mariage mais bu joxee booy yi ñu way. mu ne waaw booy nii lañuy def dugg way génn mu may leen xaalis yi dafa yomb quoi. Mhm. ma dugg caat sekk ne ma foo dëkk ma ko man fii dëkk mu ne ma tudd ma ko Ahmed. mu ne ma mën nga way ma ne ko waaw c'est la première fois ma téye micro mu jox ma may way soo ndongoloo bu njëkkoon. Oh. da ngay bëgg nit mu bëgg la waajur yi bañ. damal ci laala loolu tuuti. <laughs> ma naan waaye léegi loolu dañ na fi ko naatee ndax amet bës mooy tànnal boppam wayu ma leen ngi dërëm bee yaay wayuma leen ngir àdduna yee nga la bu ma jàppe duniya bàyyi naa la xaritoo après caat mhm. ma woy ba pare mu yëkkati xaalis may ma ne ma taxawal nii bul dem ma pare mu ne ma fii nga dëkk naa mu ne ma loo am rek del jox sa yaay nga góorgóorlu ma ne ko ah mu ne ma waaw c'est la première fois ma téye micro après ma ñëw xaalis bi nag wii mi liñ ma jox noonu bari ci man ma dem ci koñ bi sama xarit ne leen léegi damay way ñoom itam après affaire bi def leen kaa ñu ne ma yee eh, buzz loolu moo indi amet buzz bi léegi su may dem programme ñu groupe boo dem yenn saa yi dañuy dem programme am benn weccet dem jënd ñun ñëpp caag rek soow lekk àndandoo après ñu nekk ci ma nekk ci carrière bi nekk ci di dem ba première hmm. événement bi ma njëkk organiser sama koñ hmm. def sargal suma yaay def concert yàlla def mu réussir ma jugee ci def ay titre titre bi ma njëkk a génne sama yaay 18 safar ñëw ma defaat titre waaye Serigne Touba Xaadim Rasoul beneen titre bi ma mujj génne mooy tey ma yëngal samay noonu waaw après ma am ay yeneen bunt yoo xam ne suñu borom dogal na ko te sottil na ko ma joué waat Ravin joué waat Saal Ndongolo affaire réussir ba nii may wax ak yow maa ngi ciy sant yàlla parce que su ma lekkee su ma naanee musique la yére bu rafet musique la dal musique la téléphone musique la. kuy sa idole ci euh, aar bi macha allah. waaw moom ndongo la ndongo. moo la ndongoloo da nga doon li nga doon parce que daf ne suñu gudd yu tariya suñu naat yu tariya yoon bi boo ciy doog a dugg lu ne di nga ko dégg du tekki loolu bu ko waxee ma toog déglu ko man damay toog di déglu musique ay deux heures du matin trois heures di déglu musique mais bu waxee loolu day mel ne man la ko wayaloon quoi. Ah, parce que moment boobu loolu dama ko dund dama tolloon moment boo xam ne damay dem simb su ma demee simb pour way day jafe ci man. Ah. dama daan taxaw ba 19 heures simb bi buy waaj a tas ñu jox ma micro. tuuti laay way simb bi tas 100 francs sax daawuñ ma ko may. après mooy guddi yu tari ak naaju tari. Mhm. waaw loolu rek mën la ko wax. waaw moo may inspiré ma gën koo bëgg. vraiment di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla way fa suuf ci kawam parce que banlieue mënuñu ko fàtte. jeunesse bi buñ bëggee musique moom am na lu bari lu mu ci def. Mhm. Mhm. macha allah ñuy nuyu Ndongo am na 14 ans maa ko njëkk tuddee doom ci sama benn fan sama yaari saw fële ca Dugar. Mhm. ndax xale bi dafa juddu waroon nekk jigéen mu nekk góor. Mhm. nongo loo gaañu ci semaine boobu rek. Mhm. macha allah defaguñu juróom-ñetti fan sax xale bi judd. donc ñu tuddee ko Ndongo macha allah jili ñang sax day toog di ma woo ak ñaambe. pour di jël numéro xale bi di ko woo macha allah ñu ngi koy ñaanal yal na gudd fan. kon nag yaa xajaa. la ñu mën génération ñu ci ñimewuñu sàmbay mbayaan mm-hmm. lu fee ñu yëkkatee duñ ko daaneel mm-hmm. ma bëgg nga dugg ci sàmbay mbayaan ba xam ñu ko waa ragaluñu ko parce que way moom fu nekk rek lañ lay lañ lay cuq nga génne fa comme comme ni nga ko waxee mm-hmm. tey dama teg samay choix indi sama choix mais boo amee su choix dama la koy wayal comme ni nga ko sentir ak ni nga koy bëggee waaw parce dama xam ne waykat nga te ñoom ñi ñuy seetaan muy téléspectateurs yi sa morom yi nga àndal maase ak ñoom jamono. mën na am lu ñu këf ci yow. parce que dafa am baat bu am solo bu mu wax sànq umu mhm. bi ma nekkee way nekk sama deret mhm. dama doon sauver sama yaram pour bañ ñu dóor ma. moo tax ma doon liggéey ménagerie bi. Mhm. mais am na lu nekk sama yaram. te lii ëpp ci sa yaram di nelaw instant bi moo ëpp lu yeewu. wallaay waaw yeewoo yeewoo gulle dama ne. li nelaw mu ëpp lu yeewu. parce que ñun ay géwél lañu benn. Mhm. am dégg-dégg. Mhm. te boo yuuxoo am na foo yuuxoo rek bu suñu deret de taxaw maanaam suñu léppay taxaw. sànq bi barke yonent bi. Mhm. sama sama yaram yëpp a daw moom te. am na xale yoo xam ne. ñimewuñu sàmbay mbayaan am na xale yoo xam ne ñimewuñu far yoo. yaddaake. te bu dee njagambay la. Mm-hmm. ci la ko jànge jaay mm-hmm. sàmm mbubb mu baax ma yàlla na ko yàlla yërëm mm-hmm. ñoom ma jóob sekk mag ñu baax ñooñu te gis nga umu faw ñu delloo si <coughs> démb waa xale yi moom moo ñu naan tey bu ko defee mag mu la tey wala kilifa gu toog ci télé tey yem ci dina la admirer dina la admirer ni kii kat xaar ñu jël ko ci mu way ci wayu démb pas parce que musique rek du way coon ci galayaabe la njëkke xale yi mënuñu galayaabe mënuñu mm-hmm. ko de mm-hmm. te way la mm-hmm. boobu nag li tax ñu wax la ko sa choix da nga koy def ba mu neex parce que xam naa ku wóolu sa bopp nga macha allah te yàlla na nga àgg ne alxuraan mais laalal ñu foofu tuuti rek fariya ñaal bëñ naa ko daan jël xam naa ni yaay Youssou Ndour a ngay way naan démb wi waaye tey lu mat a fàttali ko ni maam dafa sonoon ci nasaraan garabu guy bu meññee yaa tax xam naa ni maam booy far yoo ñaala bañ naa ko daan jël alaale ma way kuy way ci si maam ba ma jiin laax ba lëmbe laax xam nga dafa neex lool umu saw doom yu fi màgg bañ lay taggal say maam soo ko seetee ba ci biir ndeyama ko liggéey umu santal sa yaay doom bu amee lu muy sant na ko gërëme yaayam eey yaw wile yaay booy mën di bàkk naa la wile leema ale ali baba ale ali ale ale macha allah macha allah yaa ja loolu la rek xam nga li nga wax rek démb dafa am tey dafa am waaye moom ci eeru tey bi la la indi léegi moom dañ koy gunge rek jàppale ko mm-hmm. te xam naa ne fa mu bokk mm-hmm. mm-hmm. macha allah bu ne der rek xam ne ne mooy loolu ba tax na macha allah xanaa rek ñu dem ci actualité rek mbokk yettal bi ah Chérif accident yi bëri na Pape ko rek dañuy ñëw ànd ak ci li nga xamante ni mooy actualité. ndax ku nekk nag xam na ni jamono jii nii accident yi bari na loolu ci réew mi ah. ñëpp di ko jooy ndax fan yële passé ci ginnaaw nemmeeku nañ euh, avion bi nga xamante ni fële na ci aéroport euh, mm-hmm. Blaise Diagne mm-hmm. euh, mu ngi génn li nga xamante ni mooy piste bi ba foofu dafa tàkk sax ah ni mooy soixante-dix-huit passagers dedans waaye mm-hmm. am na li nga xamante mooy onze blessés aussi itam ñu jógee ci loolu ah, fan yi passé sa fan yu néew rek ah, fii ci pont bi ñu ngi nemmeeku li nga xamante ni mooy accident bi nga xam ne chauffeuru tata bi dafa perdre li nga xamante ni mooy contrôle bu mu perdre contrôle la nag daal di dal ci li nga xamante ni mooy taxi bi ah, ba mu dalee ca taxi ba nag borom taxi bi itam mhm. fekk ji boroom deux roues ba fekk mu ngi am ñaari nit ci kaw yàlla def euh, jël na seen bakken ñaar lañu woon ak kenn ki ci taxi bi muy ñett waaw muy loo xamante ni ñu ngi koy naqarlu loolu te noppeeguñu mhm. euh, fan yu néew aussi itam umu ba tey euh, ñu mhm. nemmeeku immigration clandestine yi mhm. ndax xale yi tamit ba tey ñu ngi mbëkk ba tey di dem oh, bàyyeeguñu ndax fële ca Barni lañ nemmeeku nii amoon na gaal goo xamante ni jotoon na fa quitté lu mat ci cinq cent cinquante deux je pense personnes yoo xamante ni Euh, jëloon nañ mbëkk mi waaye nag loolu nga xamante ni mooy marine nationale. Mhm. teg nañ ci loxo ba nga xamante ni fi nekk nii euh, ñu ngi ci loxo yoon. ñu ngi ci loxo yoon waaw lu am solo la. macha allah Chérif euh, muy loo xam ne ne tamit lu doy waar la ci dëkk bi. ndax accident yi il faut que ñu taxaw ci nag. parce que am na ñoo xam ne ne amuñu ay frein am na ñoo xam ne ci seen coobare bopp la. Mhm. parce que bakkan nag lu am solo la droit de l'homme dafa am solo. Mhm. te boo demee États-Unis boo demee Europe partout dans le monde. dañu fonk bakkan. kon nag euh, nañu jóg ci li nga xam ne mooy accident yi ak ñi nga xam ne nag amuñu permis ñi nga xam ne dañuy ñëw seen oto yi di dem visite technique mhm. dañuy ñëw rek bëgg daaw oto nag dañ koy saytu dafa mel ni motooru nit rek mhm. nit tey xool ba bu yëngoo day dem hôpital lu ko oto nag day feebar di am ay problème kon nag lan nga wax si loolu Pape Alé wax macha allah alors li Pape wax dañ koy jaajëfal bu baax a baax ci euh, <clears throat> filigrane résumé de, des accidents qui ont eu à se passer euh, récemment euh, mhm. sur le territoire sénégalais muy lu ñuy naqarlu mhm. et tam li may wax rek le problème des accidents c'est un problème de discipline man pour man problème majeur des accidents au Sénégal c'est un problème d'indiscipline les gens mhm. ne sont pas disciplinés surtout les conducteurs dañoo war a indiwaat yar ci tali bi parce que tali boo ci nekkee euh, du du da ngay da du lu ngay foowee oto dafa dafa am solo woykat bu mag bi waxoon na ko coot se na ko yàlla yërëm oto malaayka la moytu ko booy daawal bul gaawantu ndax <laughs> kaw tali war nga xam ni ay bakkan nga yab yaboo ay xar yaboo ay bëy ay nit nga yab donc ñu mhm. indiwaat discipline ci kaw tali ba itam ñu xoolaat l'octroi des permis comment ça se passe parce que tey dangay nekk ci di fenn di def mhm. nga ñëw rek ñu jox la permis or defoo sax code de conduite defoo mhm. cours de conduite ñu jox la permis ngay dawal donc nanu seetuwaat ñiy dawal ñan la ko permis lijjanti permis wax <laughs> effectivement donc loolu dafa am solo il faut ñu xoolaat l'octroi des permis comment ça se passe nan ñuy joxee permis ñi ngi koy jox ñan lañu booy dawal tamit da ngaa war a lucide parce que waroo di dawal des fois nga am noomeel ivresse des fois nga naan des fois tam euh, nga nekk di dawal fekk itam am na ay stupéfiants yoo xamante ni jël nga ko mm-hmm. donc yow booy dawal doo nekk yow mi nga laal sa téléphone wala ngay laal sa a leen ci interpeller parce que ñoom dañuy souvent dañuy nekk di la jàpp ci ay euh, cadran wala ay fëru ay pas euh, sa sa klaxon tàqul mm-hmm. donc nu ñuy xoolaat bu ñuy jàpp di jàpp ci nit ci lay chose sérieuse mooy tey kii mm-hmm. dawal ban façon ban nit la ban personne la conducteur dafa war am benn conduite parce que bu ñu nee conducteur il faut une mooy tax nga doon conducteur. mais mënoo nekk koo xamante ni yow voilà. Mm-hmm. je sais pas pas trop dire le mot mais mënoo nekk koo xamante tey xëy na euh, nekkoo référence wala nekkoo koo xamante ni am nga une bonne conduite. nga bëgg a nekk ci kaw tali bi di dawal. donc nanu indiwaat yar yi. nanu mm-hmm. xamaat bu nekkee ci tali ñu bàyyi njëkkante bi bu ñuy dawal nanu téye te xam ne ay bakkan la ñu bakkan dafa fort. Mm-hmm. doomu aadama la yàlla gën a fonk donc booy dawal yow ki nga yab du la nit la mm. ak i noppam nga daw ci mm. dal ak tey nga tey aussi te xam ne tali bi xatul mais xol yi ñoo xat mm. donc nañu indiwaat yar indiwaat discipline ci Sénégal bu ñu ne état non ce n'est pas l'état parce que état du taxaw ci kaw tali bi di dawal ni mm-hmm. li may def nii mm-hmm. ko jàng seetu ko ñu jox ma permis bi mm-hmm. donc man c'est sur ces deux points là damay accentuer ci euh, euh, li àll aussi parce que lépp dañ koy jël jox ko li nga xamante ni mooy état te alors ko nit ci boppam moo war a fonk boppam balaa ndax léeg-léeg nga gis tata boo xamante ni day yeb ba fees mhm. mu leer na lii yeb na ba fees waaye yow sa xel may na la nga dugg ci tata boobu noonu mhm. ngir bëgg a yegg fa nga jëm ñun ñoo war a njëkk a bañ loolu avant tout parce que tamit dina bokk ci li ñuy aider aussi itam ndax ëmpale wuñu ñu ngi ci tàngaay mhm. te chauffeur dafa soxla li nga xam ne mooy concentration kon boo yebee yenn nombre de personnes yi rek mën na am lu mu déranger ci biir ba tax mu indi yenn yi nga xamante tamit fu leen neex taxaw dañ koy dund ñun ñëpp léeg-léeg nga jël les mu dérapé sa kanam doo xam nooy def da ngay jaxasoo yooyu yëpp tamit jar na maytu aussi itam ak borom scooter yi ñuy wax tamit ñuy takk seen i casque ngelawaay c'est recommandé c'est recommandé ni ko mhm. soxna umu waye woon rek c'est recommandé lëmbal bato waaw mu ngi noonu du coup ah bu nation <laughs> wax nii lu am solo la mbokk way bu diglewul yeete ay naxaate la <laughs> bu diglewul yeete ay naxaate la mm-hmm. voilà kon nag bopp dafa sensible à dafa mm-hmm. yi ci surtout mm-hmm. ñiy def jakartaay ñiy def cak-cak yi leen sol seen casque waaw ndax bopp amul remplaçant bopp mooy loo xam ne ne bu xasee ba daanu ci tali rek jeex na. la ñu gën a yaatal tamit li nga xamante ni mooy xol yi aussi tamit ci kaw tali bi. Mhm. ndax yàkkamte bi tamit parfois day waral lu bari. Mhm. ku nekk yàkkamte nga yàkkale client bi nga yàpp ba ñu dem wuti jiwaat xam nga. jamono bi tamit indiscipline bi. indiscipline bi bëri na daal li ko ëmb yëpp bëri na. Mhm. mais daal ñu gën a tey rek te xam ni. réew mi jàmm rek moo fi xaj. ah te loo war a lekk incha allah ci tali bii nii. bu koy yàlla dogalee di nga ko lekk incha allah alors mu beneen point bi ma bëgg a ñëw rek balaa ngay dem ci yaaxa jaa mooy mhm. domaine aéroportuaire bi mu wax parce que domaine la bu ma xaw a aéroportière muy Transair bi nga xamante euh, dafa am lakk-lakkoon mm-hmm. loolu nag euh, dañ ciy interpeller Air Sénégal mm-hmm. parce que Air Sénégal ñoo mm-hmm. indi woon vol de remplacement oh, mënuñu woon dem ñu indi vol de remplacement muy Transair alors booy indi vol de remplacement le plus souvent dañ lay euh, exiger sa vol de remplacement répondre aux mêmes critères d'exigence de sécurité et de prévention par rapport au vol de remplacement bi nga indi donc loolu nag rafetul ci image yooyu am ay nit ñi di lakk euh, avion bi di lakk loolu dafay ñaaw trop ci mm-hmm. image Sénégal donc mm-hmm. nañu bàyyi waa xel bu baax a baax te souvent ñuy xool vol yi nga xamante ni ñooy mm-hmm. yóbbu nit ñi parce que avion nag du ay du yu naaw ci air bi euh, dafa war a répondre beaucoup d'exigences surtout de sécurité c'est très important euh, waaw foofu daal laa bëggoon ñu balaa nga jox ah, moment booy xew-xew baa ngi noonu di accident yu bëri yéeg macha allah yi nga xam ne ne raaroon na Sénégal kenn ku ci nekk yaa yilif sa bopp mm. kenn ku ci nekk mm-hmm. yaa moom sa bopp mm-hmm. kenn ku ci nekk la la neex moom ngay def mm-hmm. su problème amee ñu ne état bi la wala alkaati yi la wala njiitum réew mi la wala nangam nangam loolu du wax ci njëkk ñun ci suñu jëmmi bopp il faut ñu régler suñu bopp gis nga umu waaw dama la koy joxe exemple rek kër bala moo réglé. Hmm. faaw boroom kër gi am fulla dégg naa dëgg. bu borom kër gi amul fulla hmm. këram mënta réglé ba dara di nekk ci ordre. Hmm. yow mi nga xam ne yaa moom sa taxi. nga moom sa jakartaa kee moom biisam yow xam nga ne ki ngay jox parce que boo xoolee léegi dawalkatu car rapide yëpp ñu ngi ci biis yi xam nga lan moo leen dese coxeur bi taxaw naan avance <laughs> ak arrière lak indi Mm-hmm. formation bi dafa am solo dëgg la dawa raxas oto yi dawalu quarante da ngay gis nit kuy raxas oto rek jékki-jékki rek ne ma madame jox ma caabi bi ma ko ma ne ko noonu xool ma rek ma ne ko amul xool ma oto moom dafa sensible loolu du ay wax c'est important li nga wax euh, cag-cag yi ne ci dëkk bi mm-hmm. mais cag-cag yi yàq nañ réew mi yow boo dee dox man boog man ñi dox ci case ba umu saw day mel ni ci sa suufu tànk yi la moto yi di génne ci biir suuf si la ñuy génne. tekki <laughs> Seydouna Muhammad sa doom yaa ngi ci de sa doom yaa ngi ci mais ñu réglé ko umu organiser mu nekk ci yoon organisation umu mhm. mboolem ku doon daw ci dëkk yi cent franc deux cent daw si nga fii nag deux mille ak mille franc yi mhm. mais dakaar rek du affaire bi non casque yi daal nañ koy sol xaaral umu balaa casque yi hmm. waaye yow yow mën nga sol casque mais ki nga yàpp ak keneen ki nga yebaat mënoon na ne jox casque. moo ma jaaxal yoruñu ñetti casque. kenn rek sax nga am droit yëpp. kenn rek am droit yëpp c'est trop. gis des fois waaw ñetti nit nekk ci moto man fu ma ko gisee fee laay dem taxaw la mm-hmm. barki démb fi ma taxaw ci suñu koñ mm-hmm. la benn xale xale bi amul 15 ans ah mm-hmm. bi mu fëlee paa bi demoon julli ji julli ji gée paa bi daf ne dàll ci digg tali bakkan yi sotti barka yonent bi ñu woo auto pompier euh, ñu woo kii ambulance sapeur matul sax une sapeur bi yegg si ay jàmbaar lañu. wax dëgg yàlla muy ñu nekk dalal jàmm. ay jàmbaar lañu parce que mm-hmm. yàggu fa. mais ci biir nit ñi ni ñu wëree waa ji rek. ki fiir waa ji rawale nañ ko ba rawale ma ba te kenn yëgu ko. waaw bu doon maamam la wala muy baayam dina ko def. du def loolu te waa Nations Unies gi mu amee buntu cité Aline Sow ñu ngi mën a jàpp nañ ko seetaan. nga gis xale bu am 15 ans léegi amatoo liggéey wuteetoo loo liggéey yaay jox ma ma cag-cag bu dee sa kilifa mm-hmm. nekkul koo xamante ni am na bàyyi na xelam parce que nag yor doom rek du tax nga bëgg dépense bëgg mu wàccal la dépense bi tax. Mhm. nga jël moto bi jox ko. te dafa war a formé wu tata du sax du sax du sax du sax yaay yi du waajur yi ndax mhm. waajur bu nekk sax doo ñemee jox sa doom lu koy rey. wala lu koy gaañ ëllëg. Mhm. mais xale yi léegi ñoom ñoo koy dajalee seen bopp. rawatina yenn jeu carte yi ñuy def. ci la ñuy dajalee yenn xaalis yi jënd moto. naar bi. tegu ci tali naar bi rek naar bi naar bi rek bay toj na réew mi yaa ngi dégg toj na <laughs> am na ci ñoo xam ne mhm. ñoom ñooy bëggee uh-huh. ba teggi seen nat mhm. ma gis naa ko mhm. jëndal sa doom cag-cag eh, am na teggi sa nat wala nga dem euh, ci fi ñuy lebe xaalis bugguma publicité nga dem leb fa fanweeri junni xale bi ci vanaa yi dawal sax dawali sax duñ ko mën bu baax léegi bu journée bi yow bu la indilee sept mille rek mm. nga xam ne yaa ngi denc 3000 yi maa denc ko 2000 yi. lii courant lii lee nga dugal ko. non dama ni nañ ko teg ci yoon. dëgg la. lal da nga koy nooyal balaa tëdd jot. doom danga koy yar bala muy màgg. lu la. munoo yor sa lal bàyyi ca xaaxaam ya hmm. bàyyi ca salte ba bàyyi ca tilim ba tëdd jot nga ñëw bëgg a faxas-faxas doo nelaw nelaw bu neex waaye soo ko lalee ca deux heures hmm. defar ko ba mu baax ba bëggee tëdd da ngay dem puus sa nga gënaay tëdd ca doom yi nañ leen yar dëkk bi nañ ko teg ci yoon hmm. nit ñi nañu nangu am kilifa am kilifa mooy li am solo. Mhm. boo ko amee mooy li am solo boo ko amul mooy li am solo. waaw umb kon ñu ñëw tamit ci clandestine yi. yi nga xamante ne ñu jël mbëkk mi aussi tam. Mhm. Mhm. ñu waxtaanee ko yaay bëri bàyyi ko mu wax ci. waaw euh, incha allah euh, dañu bëgg mu dem ci deux mois comme Oumou Show la ñuy wax ak actualité. Euh, chaque mois day am benn rubrique bu am Oumou Show ak actualité. ñu def ko deux fois ci semaine bi léegi dañu bëgg mu def benn son def mot de la fin xam ne dañuy dem deuxième partie aussi. Euh, beneen équipe deuxième partie mi ngi ñëw te fii dafa war a saf. ah bi war a ñëw tey daf fi war a yëngal. Ah, macha allah mooy dëkk waaw suñu rakk ji nag moom la ñuy bàyyi. Ah, waaw ndey cuun a ngi ñëw nag mbokk téléspectateurs yi yéen ñi nga xam ne yéenay soppeem. yéen na ngeen toog nag euh, macha allah téye commande bu baax ngeen xaar ko te xam ne ne bu ñaagee jàll rek di ngeen xam ne lépp dëgg la. Mm. macha allah. waaw ah, dégg naa li nga wax ma fi mm-hmm. dégg boobu ba léegi ay kàddu. yoo xam ne amut leen luñ ciy defaraat jàngat lañ ciy am rek. parce que émission ndaanaan la moo tax moo tax moo tax dañ fi indi ndaanaan mu nekk waaw actuellement nag. Mm. xam nga maa ngi nuyu Mbacke jeune talent suma waa ji. moom ak Ahmed saw Couture. Ahmed Sow Couture si yére bari moo koy ñaw suma xarit la. di ko ñaanal jàmm. parce que kii sànq dafa wax lu am solo. waaw moom dama toog semaine bii jaal am sama benn xarit boo xam ne sama staff la nekkoon. su ma daan joué géejawaay bu dee ay mariage wala ay ay ay xew. moom mooy ñëw defar lépp ba sama heure joué jot ma ñëw. dama toog benn une semaine. Mhm. ñuy déggante téléphone mu ne ma dafa voyagé mi ngi Murtani. Mhm. ma toog lu yàgg mu ne ma mi ngi Algérie bi may mujj woo daf ma woo appel WhatsApp. Mhm. woowewu ma numéro daf ma woowee beneen numéro mu envoyé ma ay vidéo ñu leen di torturer fi ñu nekk. ñu def yaramu neen ay bâche lañ leen defaral ci saaru désert désert boo xam ne ay suuf la ay gileem ñoo fa nekk ñu defal leen fa ay mbaar. mën na ko yow loo doon wut fii mu ne da doon tukki pour jaar foofu. moom ak ñeneen am na ñoo xam ne ñu ngi dëkkee côté Kaolack bi pile ay vingt cinq personnes ñu ne ñoom vingt cinq lañ woon sept personnes yi dee nañ. dee nañ. mu envoyé ma message mu ne ma instant bi jàppale ma. fu ñu fu ñu mi ngi Algérie. Algérie ci dëkku naari waaw. après bi ma ko waxee fekk boobu maa ngi waroon dem programme juillet mais jour woowu dama dem noonu way mais nekkuma en lèche parce que moom suma xarit la. daf daan metti sax ma dëgërle mu ñëw yëkkati xaalis mu ne ma booy ci lii affaire yooyu. xam nga moment bii bi ma koy mujj a dégg man maa yëkkat sama xaalis envoyé ko. mais pour nga nekk noonu. pour nga jox leen xaalis sax ban secteur la. non nee nañ am na benn kii bu fay ñëw di di di di leen jël si mais bu ñëwee comme c'est trois mois day ñëw jël benn cent personne deux cent personne indi leen Sénégal bala muy ñëwaat yàlla xam. bi mu fa njëkkee ñëw deux cent personnes benn benn waa ambassade Sénégal mais dafa am ñoo xam ne comme ñoom ñooy dox ci maam social affaire yooyu oh. di di dem ci dëkk yi di jéem a jàppale seen doomi réew bi ma envoyé vidéo bi tas naa ko ci groupe whatsapp yi ma bokkoon def ci li ma mën ak groupe bi nga xam ne dama ci bokkoon groupe Ousmane Sonko bi ma partagé affaire yi mhm. mais actuellement ma koy wax jotaan naa fu mais jot bi day naqari parce que Oh. bu ñu xamee ne ñu ngi communiquer waaw dafa am heure yoo leen di woo di diggante une heure du matin deux que foofu dañ leen di garder dañ leen di garder ñu génn daw parce que fi ñu nekk ci désert bi la ay giléem ñoo fa nekk seen lekk noonu si une semaine la ñuy sangu ba une semaine oh. seen naan ay ay bëriga lañ leen defal mu vidéo lépp envoyé ma ko suma xarit la waaw di ko ñaanal moom itam fi mu nekk yàlla génne ko fa Hmm. ah doomu aadama yi bëgg sonn parce que euh, même waa ah, Iran bërki dem xaalis ak doomu aadama dem wane nañu Iran tamit euh, ay jógee di dem di jànku foofu Iran dégg naa aéroport bi bu ñu ñëwee seen njaatige yi bu ñu leen yóbbu kër ga duñ fa génn amuñu fa droit am jëkkër amuñu fa droit am doom ñu leen di torturer waaye itam bu ma xamee ne hmm. dëkk jàmbur boobu bu ma fa demee dégg naa fa ay jaloore ni nii lay demee hmm. mais naa def toog ba yàlla ñëw moo gën temps bi ngay perte foofu boo ko toogoon fii am loo réaliser tuuti tuuti tuuti mën nga am dara mm-hmm. Mm-hmm. parce que bu ñu toogee ne nguur gi fi jóge baaxul nguur gu bees ñëw nañ am leen espoir mm-hmm. yàlla baax na gémmiñ gu yàlla bind rek def na ci tàngalu borom ba tax na macha allah yëkkati loolu parce que xam nga temps bi mu ngi ñuy xoj te deuxième partie bi dafa war a dugg waaw loolu la ñuy def parce que bëggoon nañ playback yenn morceau yi mais temps bi moo ñu ko dul may dëgg la ba tax na beneen yoon rek ci yeneen plateau dinañ ñëw waa indi équipe bi buzz music après ñu toog ñu waxtaan live mais nag di nuyu suma frère bi suma grand suma xarit mm. parce que xol mooy nit waaw dafa am benn ndaw dañ ko mas a yónni ne ko mm-hmm. su sëriñ bi daf ko yónni ne mm-hmm. ko indil ma ci gàtt bi lu baax mu mm-hmm. dem rey gàtt bi jël xol bi indi mu ne ko lu tax nga bàyyi fa yàpp bi yëpp indi lii mu ne ko damaa xam ne xol bu baaxee hmm. lépp bu baax bu bonee lépp bon mais actuellement nit nu mel jëru nga koy laajte jukko du nëbbatu lu hmm. nekk si si si xol feeñ ci jëmm kon moom dama koy ñaanal hmm. Chérif yàlla defal ko jàmm dëgëral ay cëram li ci kanam mooy dàq incha allahu rabbi Mhm. jàmme jàmme Moussa kon nag mhm. jërëjëf mot de la mhm. fin baa ngi noonu ndax rafa rafet tamit nit yéene la macha allah ba ñu indi la ci plateau bu mag bi nga xam ne ne nee naa ko ne du fi toog du fi ñëw rek am na lu la yàlla may te am nga talent macha allah kon nag euh, nga waaw dama damay damay continuer di gërëm benn ci yow ak ñi ma bokkal plateau bi yëpp. waaw jërëjëf parce que 7TV actuellement. Mhm. jeunesse bi ñu ngi koy bàyyi xel. di nuyu géejawaay gi ma jugee. Mhm, di nuyu suma frère bi ma àndal seex. suma xarit la. ma lépp la Cheikh maa ngi koy nuyu ak Cheikh Fall borom yëmbal mhm. xaritu Chérif la ah, waaw kon li may tëjee mooy li waaw li may tëjee mooy li Youssou Ndour doon wax ci jamono ji foofu lañ toll mhm. te actuellement comme li ñu doon waxtaane sànq mhm. am na ñu ko dund ba romb ko am na actuellement ñoo xam ne ñu ngi koy dund kon loolu laay tëjee après yeneen plateau rek ñu gën a waxtaan a ba tey am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer ñoo ñoo ngi dunde coono ba tey am na ñoo xam ne bu ñu reere du ñu añ yaay ñoo ñoo ëppule coono na ko ñépp yëg li jot jot na tey ñoo ñoo dundee coono dollil dollil dollil dollil bon solidarité encore encore encore encore plus solidarité yàlla bind nit ñi te yamaliwuñu li ci umu saw nekkul ci keneen booy def lu baax defal te yàlla taax bul déglu li nit ñi wax xam naa ni dee du jaase baax du forcé nit ku baax du ñàkki noon buy baax baaxal beaucoup 7TV tikir kir Alla Dieng sa mot de la fin yow tamit macha allah ci yeneen i actualité macha allah. suñu teewaay ci plateau bi mm-hmm. yow la kon duñ def lu dul gërëm la balaa ñuy génn ci biti. di gërëm sama yàgg bi ñuy door fii <laughs> yow ak Ibou Bongo macha la da nga jékki-jékki rek dem ay France ak yooyu ay Italie Belgique commencé am xaalis commencé def ay yëf am oto. Ah, lay sànni xeer rek. <laughs> mu ngi lay sànni xeer waaw que sama yaay la nag mu war na maa mën a sànni xeer di ko gërëm bu baax nag na dara ñaawu la nuyu maa abi. maa abi Dia waaw soxna ñu koy nuyu waaw ah, di gërëm sama nuyu ñaari ah, waajur ah. di nuyu képp ku ñuy seetaan di nuyu nag mm-hmm. docteur Lay aussi itam docteur Lay ah, waaw ñu koy nuyu de passage dentiste bu mag boobu macha allah ci Kër Massar allah professionnel bi nga koy def macha allah ci prix yu néew kenn du moom blanchissement dentaire rek yëpp da koy def macha allah nga nekk ca Kër Massar mm-hmm. voilà di gërëm képp ko xamante aussi tamit yaa ngi ñu doon seetaan fii ci 7TV <laughs> ñu ngi leen di jaajëfal di leen waaye balaa boobu umu uh-huh. ah, kii nga xamante ni moom ma génnee ci tenue bi moo la habillé muy euh, Moussa borom Colobane ah, am na ah, classe mu ngi tudd M2S euh, ñaari boutique la yoon nag beneen bi mu ngi nekk Colobane ngi nekk fële nga xamante ni mooy ko ci uh-huh. PNR di ko wax ni Moussa jàmbaar la ñu xamante ni nag ci defal xabee bi waaw bi suñu chéri chéri ngoy na ko ci dina ko jàpp nag incha allah dëgg neexul madame inconnu ngi nii na xaar ba après rek incha mm-hmm. allah mbokk yeeg xarit yi. di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen plateau incha allah. sama góor ki nekk Paris nag sama xarit bi. Mouxa Thioune Mouxa Thioune Thioune Demba Yacine Sakho. waaw Mouxa Thioune aussi kenn yow Thioune. <laughs> xam nga ku lim day juum ku lim day juum ay Thioune moo la bëgg nag moom tam ku lim day juum ba tax na maa ngi koy jox ñëpp bàyyi ma ah. voilà loolu weesoo macha allah Chérif Diamé Moussa. Mhm. macha allah suñu shérif bi nga xam ne ne macha allah loo bokkul neexul. nit ku baax la waaw. jërëjëf eh, maa ngi kontaan doomu yaay Kéwé Dieng ca Gambia. <laughs> <laughs> donc di kontaan bu baax a baax di am mbégte contentement saa su ne di teew ci émission bu mag bi lay mhm. di Oumou Sow di leen jaajëfalaat bu baax yow Oumou Sow di nuyaat sama yaay maman Ngoy Thiali moom mhm. sama yaay la dama koo bëgg. ndax itam eh, dañoo def émission boo xamante ni réew bi ba tey moom la ñuy waxtaane te xam naa ne dinañ ko biisaat bu soobee yàlla nuyu Ahmed Beuz mi nga xamante ni itam daanaan la li woy li woy li la eh, woyoo be la dëkk am fa mhm. titre foncier boo ko déggee xam ni mhm. woyoobe la donc di ko ah, jaajëfal di ko ñaanal baat bi wér nuyu Kébé Dieng Sall euh, mi nga xamante ni mooy borom Gambia sama mag sama xarit sama jigéen di ko jaajëfalaat bu baax a baax di leen ah. jox rendez-vous très prochainement mhm. fii ci la 7TV la télé qui nous ressemble et nous rassemble jaa jëf merci d'être venu Chérif Alé Dieng merci beaucoup macha allah suñu ndaanaan bi nga xam ne ne mooy borom buzz nee naa ko buzz bi moom téye ko si sa loxo rek ndax boo fi ñëwaat live bu toj ngay def macha allah waaye sa mbay mbayaan njuufee gi nee nañ bu ko fàtte ndax ngoy boo fi foog nga njuufee pour ah, ba lay ñaan kenn du ñë kenn du nangu nangu jël sa mbay mbayaan xare ba ca cuur cuur xam nga luy cuur cuur buur taat ko ca lay di aj meew yi sa mbay mbayaan fa ngeen di aj seen meew yi koppali di aj meew yi ca kaw waaw Assane ah, Mbaye dina ñëw Mbaye Mbayaan tey fii. waaye umu nag. Ah. nga xam ne moom accompagne suba tey. ki la accompagné kenn du moom. mooy borom wéer bi moo ko jox taximaan ba léegi. de la jeunesse bi euh, mu ngi dëkk HLM. waaw waaw ba ñuy ñëw léegi macha allah oto bi moo ci def mm-hmm. essence bu bëri. waa gis kenn du moom xale bi dafa yàgg riche macha allah yàlla na jàmmam yàgg. <laughs> merci beaucoup tata kontaan naa ko. jërëjëf mbokk yeeg xarit yi loolu moo doon première partie Oum Show ñu ngi ñëw nag ak beneen daanan fii dafay toj